salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare sëriñ Ibrahima Kane ak sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguérane ñi fi teew teewaaleel fi sëriñ Cheikh Diop Kellel mi jiite de directeur Touba ci teewaayu sëñ daam Loum mi jiite relation extérieure ak mboolem ñi fi teew ñëpp ci bokk ci liggéey bi nga xam ni mooy ittihaadu at bàyyil xaddim eh, leen di nuyoole ak délégation bii fi teew ci njiital sëriñ Morlo mii nga xam ni ci kër gi la bokk maa ngi koy wax léegi ni ko danga am nga ay alamaan ndax eh, ma yaakaar dama koy boole yeeg sëñ asan sax ndax moom mu bindu ci yëf yi ndax lii ñuy def nii ci la bokk noonu moom noo ko bokk. Euh, mu ànd ci ak sëriñ basiru Diagne di chargé de mission bokk ci ñiy liggéeyal président de la république fii ci dëkk bi ànd ci itam ak sénéral Diène Guèye mi moom itam mooy chargé de mission nekk congé municipal bokk ci ñiy liggéeyal président de la république fii ci dëkk bi yàlla dogal candidat benn bokk yaakaar di Matar Diop. Euh, yabal leen ñëw fii bokk si ak ñun liggéey bi euh, sëñ Ahmadou kon dama leen di wax ni rek ñi ñooy ndaw yi nga xam ne ñoom la fi Matar yabal si njiital sëñ Mor mi ngi xay ci kër gi la bokk bokk ci dëkk bi yàgg jaxasoo yéen ay liggéey ndax ko xam comité organisation Magal Touba euh, xam ni Mor Lo pàcc bu rëy la ci yor mooy commission internat ngeen yàgg jaxasoo ak moom ay liggéey. kon bu Matar jàppee ab délégation boole ko ci mu jiite ko itam wane na ne yabal na ko fi mu ko war a yabal waaye mu jël kaddu gi na jox ko général Diène Gueye mu war a yëkkati kàddu ci turu Matar Diop kon dañuy jox kàddu gi général mu wax ci turu Matar. ni ñu ko waxee rek ginnaaw bu ñu remercier Mori si kàddu yi mu yëkkati sànq présenté délégation bi ñu ànd seeg suñu doyen Morlo suñu frère bassiru Diagne ñu ñëw fii si bis bi ngir ñaari mbir. bi si njëkk ñëw nañ fii pour suñu frère Matar Diop moom mi nga xam ne mooy le candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Mbacké mais également tamit ñëw nañ fi ngir bis bi moom bis bu raar la si monde bi ay nit woote ko dafa raar dans le monde entier ndax ay nit bàyyi koo fi dem barsàq ñiñ bàyyi jamono di leen fàttaliku ba wutal leen bis di leen ci ñaanal loolu dafa raar dans le monde entier danga gis rek koo xam ne mën naa mbokkam mu génn àdduna mu wutal ko bis di ko ñaanal individuellement papaam wala yaayam wala dara waaye kuréel nag gu taxaw gu toll ñu seen kuréel gii ak dimension bi mu am ci yoonu murit ak ci lislaam organiser wu jàpp bis tudde ko bisu way dawle yi chaque année ñu dajaloo di leen ñaanal nga xam ne ñi ngeen di ñaanal man suma baay bi jiitu génnu si keneen ku baayam jiitu génn si keneen ku yaayam jiitu génnu si nga xam ne ñëpp ko bokk dans le monde entier képp kuy jullit dugg nga si ñaanu tey gii nga xam ne kenn mënul ne maa organiser bis bi di ñaanal sama papa wala maa ko organiser di ñaanal suma yaay bisu woy dawlu ñi la te woy dawlu ñi nag dañoo wër àdduna bi ndax foo dem bu fa nit juddoo rek nit faatu na fa loolu moo tax bis bi dafa am solo bis la boo xam ne même bu dul ñun ay politique lañ mais bu dul loolu tamit avant ñu nekk ay politique ay jullit lañ nekk ay murit kon bis bi moom bu xewee li ñu war a njëkk a def ñun jullit yëpp mooy sóob ci suñ loxo ndax ñëpp ko war a bokk loolu nag nekk lu rafet loo xam ne gëm naa ne bari na bis yi ko gën a xumb ëpp ko coow waaye bés bu ko ëpp njariñ buñ ko dee xool amul nit ñi nag dañu toll ci jamono boo xam ne nag ambiance la ñu xam ak am riir waaye ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ñoom tey suñ amaatoon aw làmmiñ di wax ak waa àdduna buñ dee jugé dinañ xam nan la ñuy ndax moom sama benn baay boo xam ne daf ma doon jàngal lenn ci ay xam-xam daf ma mos a wax ne ma ñaar ñaar ñii ñoo am ki mën a jëf ak ki munta jëf nee na ma ki mën a jëf mi ngi ci kaw àdduna waaye xamul li jëf di jariñ nee na nag am na ku nekk ci biir suuf xam na li jëf di jariñ waaye mënatut a jëf yéen nag ñooñu ngeen représenté tey la ñu manqué woon ci seen rëcc-rëcc ngeen ñaan yàlla mu jéggal leen ko ba noppi yërëm leen kon loolu lu am solo la ñun nag wax naa ko sànq nee naa leen ay jullit lañ ay murit lañ kon ay mbokk lañ ndax alxuraan moo waxoon ne jullit ñëpp ay mbokk lañ rawatina nag ñu nekk ay murit am lu ñu tënk muy ba sëriñ Touba nga xam ne kenn mënu ko séddoo bàyyi sa moroom kon pàcc bu njëkk bi mooy loolu su ngeen wootee war nañoo ñëw ngir lool beneen bi si topp nag mooy suñu frère Matar Diop président Macky Sall daf ko tànn ci suñu biir def ko candidat bi bis bii di ñëw móori mii ci ñun la bokk ñëw na wax ñu ko ñu ne ko incha allahu rabbi buñ ca agsee daan ñëw bokk ko ak Matar nag moo waroon a ñëw waaye xam nga ne jamono yi ak politique beeg campagne yi mi ngi dakaar nekk ci ay mbir moo tax mu wooñu woo suñu mag ji di moorloo nekkoon nanga ànd ak Basirou ak général bu ngeen demee ngeen fekk fa Mori woowaale ñi nga xam ne ñooy jàppale parti bi fii soxna ndeyloo jeemee si la bokk pour ñu ñëw indi suñu àddee si bis bi di sàkku ñaan tamit ndax dañoo bëgg ndam sàkku ñaan ngir ñaari mbir fii di Daaru Xuddoos fii la lépp sottee fii la yoon wi démarré kon fii mën naa wax ne tey bu ñu demee ba tal ay politique ak di tal ay département bay wax ay affaire wut ay ndam yi politique fii la ndam yëpp sottee moo tax nag comme dañuy wut bu ñu ñëwee dinañ leen ko wax yéen ñi nga xam ne yéen yéen a fi ne di jëmmal dëkk bi di jëmmal bis bi di taxaw lépp ñu wax leen ngeen ñaanal ñu te jàppale ñu. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi irrahmaani irrahim barakat Cheikh Xaddim mbokk yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatu sëriñ Mor ñoo ngi lay nuyu yaag sëriñ Bachiru ak général soxna Ndeyloo Jeng di leen yóbbante ab nuyoo itam ci sëriñ Maxtaar di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi di leen sant itam ci yëg gi yeen sant bu baax a baax itam ci feeñal gi seen yéene seeni taxawaay ci bis bi di ñaan sun borom tabaraka wa yàlla mi nga xam ni dara tawu ko yal na leen sun borom defal lu kawe seen jot bis bi daanaka li ci matoon wax lépp général wax na ko te mooy importance bi bis bi am ak jubluwaay bi nga xamante ni moom la ci mbooloo mi jublu eh, daanaka du jar di ci delluwaat waaye bis bu am solo la ci nun bis bu am wàccuwaay la itam ci nun ndax jullit ñëpp lañ koy defal fu ab jullit mën a nekk ci kaw suuf te jiitu ji sa wàll ngi ci loolu nag lu am solo la loo xamante ni nii jullit ñëpp lañ koy defal kon su ngeen ci ñëwee mel na ni seen yëf ngeen ñëw noo ko yéen ko bokk ñoo ci yem benn wàccuwaay ndax yéene jiñ ci am moom ngeen ci am ci féete fi jullit ñëpp ci ñaan ndax dañuy wax ni ku faatu moo ku lab ci géejeyam ki labul nag lu man ci ki lab kuy dund mën na ko ci ku faatu kon noo ngi ñaan suñu borom mu nangul nu ko te defal nu ci lu kawe suñ jot li ngeen wax ci ay taxawaay nag lépp dégg nañ ko bàyyi nañ ko xel bu baax a baax itam ndax damay wax ni nun ñëpp ay politiciens lañ suñ yorut am réew yoruñu ab yoru ñu département it yor nañuy kër yor njaboot te politique du dara lu dul nu ñuy gérer ak njaboot rek kepp la waaw baat bi nag xëy na am na ñuñ ko féetale waaye nun ñëpp ci méthode boobu rek la ñuy dox kenn ku ci nekk na nga fexe ba gérer njaboot ga nga yor ci jéem leen saytu ci seeni bëgg-bëgg ak dox seen diggante ak àdduna loola rek la ñuy yore am réew noonu la ñuy yore ab région noonu la ñuy yore ab département euh, le sëñ Blaat doon wax Abdou Diouf rek ni ko xawma nu ñuy yorem réew de waaye xam naa nu ñuy yore ak njaboot mu ne ko yore njaboot mu ne ko saa yoo xëyee lu njaboot gi bëgg nga am jomi wuti ko te boo ko amee nga nga nga am ngoru andi ko ci kër ga te nangu séddale ko te nga gën caa tuutile ñu ko noonu rek la ñuy yore mu ko noonu dong la ñu yorem réew loolu gis nañ taxawaay yi ngeen ci taxaw ci njaboot gi gis nañ itam taxawaay yi ngeen di taxaw ci wetu askan wi noo ngi ñaan li ngeen ci bëgg yàlla na leen suñ borom defal lu kawee seen jot waaw wet gi ngeen wax ci ñaan daan ci def suñ kemtalaayal kàttan ngi leen di fasaale ci bis bii nga xamante ni moom la def te jëmmi suñ borom dong tax ñu di ko def ñi ñu koy defal itam kenn taxawu ci ci sunu kanam ñuy xool benn intérêt àdduna ci moom ndax mënatuñ ko ñoom kon yàlla rekk lañ cey xaar yàlla moom mii nag moom la ñu boole dénk ko suñu bopp ak yéen kenn ku nekk sa mbir suñu borom fekk la ca defal la ci lu kawee sa njort te loolu yàlla mën na ko ndax toujours day wax rek ni yàlla mi bind bopp def cay rankoñ yu tedd yu tàng ak yu sedd aw ñaq di ca génn deret ne ca dëtt ne ca ay taflit ne ca ay ñandaxit ne ca xaaxtandiku ne ca biir te lenn lu ci nekk mën a génn te du génnaale morom ja kooku kenn ku ne mën na laa fekk ci sa soxla defal la ci lu kawe sa njot kon tëlewu ko na koy ñaan bu baax a baax suñ borom jàppale leen suñ borom dëgëral leen ba yéene ji ngeen am ci réew mi am ko ci dëkk bi suñu borom defal leen ci lu kawe seen njort am nañ ci yaakaar bu baax a baax rafet nañ ci njort itam ndax ñenn ngeen ci ñun amu ci kenn koo xamante ni danañ génn fii di ko laajte nan ndax diw mooy diw kon xama xamante xam nañ seen taxawaay xam nañ seen yéene eh, ñoo ngi ñaan bu baax a baax am na leen yàlla taxaw yal na suñu borom barkeel bu baax a baax nit ñi nag yorinu nit moom wéetu dara lu dul amuk yëg ci nit ñi di bokk ak ñoom la nga am sa kemtalaayul kàttan nit ñi nag moom kenn mënut ni luñ soxla danaa ko def waaye luñ soxla nga def ci la nga man soo ko defee da nga wàcc ndax su wax ni garab guy tàbbi sax te ci biir àll lu ñax ma dëll dëll da nga gis ñallu su ci jëm waaye lu garab naat naat naat naat te amut benn njariñut fi mu doon yi boo xooleem ñaxum kese koy wër doo gis ñallu su ci jëm mooy nit njariñ rek lañ koy jare nit deesu ko lekk deesu ko naan njariñ nag du jox jox rek nit nag boo ne njariñ ñun dafa ne làmb poos la waaye li ñuy jariñu doomu aadama làmb poos ci gën a néew waaw nit mënees na koo jariñ cim xel mënees na koo jariñ ci xam-xam mënees na koo jariñ ci doole mënees na koo jariñ ci wërsëg itam yooyu yëpp xeetu njariñ la yoo xamante ni nit ñi dañ koy soxla kon noo ngi leen di bàttale bu baax a baax ngeen gën a saafonte ak njaboot gi gën a wàcce seen bopp ci seen biir te bàyyi leen xel bu baax a baax su ngeen ko defee bu ëllëgee fu ngeen nit ñi dañu taxaw ci seen ginnaaw li jafe nag mooy xeeb nit ba mu yëg ko nga bëgg ko yilif nit fekkee boo ko rombee doo am ci moom soxla boo séenee jarul la taxaw bu ëllëgee boo ko bëggee tàllal loxo mu lànk parce que day xam ne daa am loo loo koy doyee te nit ñi nag am nañ fulla bu baax a baax ci seen bopp moo tax mu ngi leen di dénk bu baax a baax gën a jaxasoo ak njaboot gi gën a wàcc seen bopp bu baax a baax gën a ji saafonte ak ñoom parce que Sèye Blaat daf daan wax ni li gën a jafe ci àdduna mooy xeeb nit ba mu nga bëgg koy nga bëgg ko yilif mënta nekk. waaw xeeb nit ba mu yëg ko nga bëgg ko yëlif te koo dégg ma diw ni mu ma def na ko def rek a tax te si Moussa daan wax ni as gor boo ko boo ko tëralee boo ko teralee rek tëral nga ko teraanga teraanga rek daan wax nag ni teraanga rek ci lañ mën a yilifi adduna bépp adduna bépp la wax ni mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbennum teraanga lay doon teraanga nag ak yëg a ci jiitu teraanga du am ak yëg a ci jiitu ak yëg ci nga mën a may ñëpp ba desal ak yëg man nga cee may ñëpp ba desal kenn ku ne na diw ni ma def fi ma teg tegu ko fa kenn te ak yëg rek ko waral su ko defee nag leneen la ca doole mën a man nga seet la cay maslaak nit ñi sa kemte laayil kàttan waaye yàlla na suñu borom dimbali yàlla na yàlla jàppale defal leen dem barke Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci teewaay bi ak bokk si gi ngeen bokk si ak ñun bés bi ndax ñun bés bi ñor na nu ñorin woo xamante ni li liñ ci ñaan suñu borom bu newoon ci suñu loxo dañ koy génn ko ci kaw taabal ji waaye nag dañ caa lott moo tax mënuñu ko moo tax ku ñuy jëmbali ci ñaan jàpp nañ ni la nga ni ñuy defal mooy li gën ci li ñu gën a soxla mooy allahuma nangam rek yàlla ñaan nangam mooy ña dem suñu borom defal leen yërmaane ak njëgal ñi fi des itam suñu borom bañati leen a topp dara ci nguur gi ndax xaj na fi ndax bu ñëpp baaxoon ba mel ni yonent bi jëruñu yàlla dara bu ñëpp bonoon ba mel ni iblis dara la wàññiwut suñu borom ndax doon na buur ba pare kon loo xam ne amalu ko njariñ nag te du ko wàññi dara jërut mun koy topp waaye ci kaw nu torox lu wan ko ni ko rek yaanu moom ñoo ngi leen di sant bu baax jërë jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah